bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu mbokk yi seetaan seen seen MKTV Muxaddamatul Xidma TV bu Grande Mosquée de Touba ñu ngi leen di nuyu euh, di am mbégte ñu ngi fii ci Côte ba léegi ngir liggéey bu am solo boobu nga xam ne ñu ngi koy def ngir toppi tànki sëñ bi ci biir loolu nag euh, bokk na ci liggéey bi suñ ñëwee ci dëkk bi euh, di rencontrer njabootuk sëriñ bi. ci taalibey Sëriñ Tuubaa yi ak niñ fi nekkee ak it comité bi ak histoire dëkk bi tamit ak yu demee noonu ndax bëri na dëkk yu sëñ bi jaar yoo xam ne léeg-léeg dana tudd ci ay xasidaam xeetu dëkk ba tudd nit ña ak yu deme noonu loolu tamit danay am solo ci liggéey bi ñuy def ñuy gëstuwaale lu aju ci dëkk bi tey ne fii ni ñu ngi fii ci eh, kër Serigne Habib Biyaagi di taalibe bu mag ci yoon bi di ko xam ne wala rënta na ak kilifa yu bëree bëree bëri euh, di koo xam ne yàgg naa jaxasoo ak euh, bokk yi ak euh, sëriñ si waaye rawatina njabootu Cheikh Amadou Fadal ndax nim ñu ko waxee léegi ci année yu yàgg la jébul woon ci sëriñ Jili mu Cheikh Amadou Fadal waaye nag ñu rencontre ko ci jàppandal ak sëriñam xaritam Baye Cheikh Awa Balla mu Cheikh Amadou nga xam ne moom. dafa doon kenn ci jumaa ji doon kenn ci muxadimatul xidma ci di jàppandal lu aju ci jumtuwaay yi ñuy liggéeyale sëriñ bi ci waxtu wu nekk kon su fekkee ne ñëw nañ fii fekk ko fii mu yor entreprise bu mag boo xam ne. HLB construction mu ngi tudd HLB construction. Mhm. di entreprise boo xam ne ci di yëngu ci wàllu BTP ak yu yu ci ci aju di liggéey ak fii ay sociétés yu mag société privée yi di taalibe suñ Tuubaa di liggéey ay ivoiriens yor ay employés fii. Eh, jaadu na ñu dalal ko eh, taataan ay kàddoom ngir mu eh, wax ñu liggéeyam ak it taxawaay bi nga xam ne am na ko fii ci réew mi kon sëñ ñu ngi lay di la jox wax nga présenté wu. Mm-hmm. ñëwal ñu ci sa taxawaay fii ci Côte d'Ivoire ak liggéey yi nga xam ne yaa ngi koy yor. waaw sëñ Moussa bi gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér ñun ay. bi Sëñ Tuubaa yoo xam ne dañoo dox ba dugg ci dikk bi fii suñu liggéey indiwoon ñu fi ñu nekkoon ci taataan ci ci ginnaawam mu jàngal mu métier yàlla ba yàlla def euh, ñu commencé tari la ñu jàngaloon def moom mu wàññeeku fi mu nekk nii mu nga cëb voilà yàlla moom mu def mu wàññeeku moom mu nga ci dëgg mu ngi mu nga ci nga ci dëgg ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ndax moo sama rakk yaay la moom moo ma jëlee Sénégal indi ma fii jàngal ma métier dama ñëwee fii nag man fii la duggee ci yoonu murit jégul sëñ Jili mu sëñ Fallou waaw muy mu doon sama sëriñ doon sama xarit doon ko waroon taxaw ku ma doon jàppale voilà loolu daal muy bii mu ñëw fi ubbi sama entreprise nekk ak ay ivoiriens yoo xam ni xale yu dynamique lañu xale yu am jom lañu xale yu may jàppale lañu voilà la preuve en est que bi nga ñëwee sama chauffeur moo leen dem jëli ca daayira ba indi leen fii voilà fii nag ñu fi nekk di fi liggéey suñu tubaab comme ni ko suñu ji la waxoon que ko ne dama bëgg a dem Italie liggéey ne ma da ngaa bëgg toog fii am lu fi liggéey suñu tubaab kon nag ci loolu lañ taxaw ba xam ne ñun nii suñu tubaab lañ fi nekkal ñu ngi fi liggéey nag waa dëkk bi nag te amuñu fi benn problème macha allah voilà loolu daal bal eh, bu soobee loolu daal loolu lañ nekk ci dëkk bi sa xeetu xeetu liggéey. Hmm. ak entreprise yi ngay liggéeyal. ak ban façon liggéey la ba ñu ko mënoon a faram-fàcceel ci wolof. waaw ñun nag dañuy liggéey ci wàllu batiment hmm. bon maanaam je peux dire que entreprise dañuy liggéey lépp luy wàllu bâtiment mais industrie la ñuy gën di liggéeyal fii industrie yu mag yi mel ni par exemple ay Nestlé. yu mel ni Orange yu mel ni ay groupe Olam mel ni ay Lonase bu Abidjan ak pas daal d'autres sociétés dañuy liggéeyal aussi ak quelques particuliers mais bariwul dañuy liggéey plus beaucoup avec le loolu ñuy liggéey fii quoi wàllu bâtiment comme ni ngeen gisee nii xam nga def ay tabax ay bâtiment defar ay hangar def ay époxy de sol genre yooyu ci la ñuy liggéey quoi mais daal en gros en en gros travail yi génie civil la ñuy def voilà tout ce qui est génie civil la ñuy def fii ci Côte d'Ivoire voilà c'est ça. ban année nga ñëw fii ci Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire maa ngi fi ñëw depuis 89 laa fi ñëw. 89 depuis 89 laa ñëw maa ngi Côte su entreprise bi ñaata employé lay war a toll fi mu nekk nii. sama employé employé fixe yi ñu am fii. am na am nañu vingt cinq employé fixe. mais nag dañuy liggéey ak plusieurs emplois yoo xam ne maanaam sa indirect bi moo gën a bari des fois dañuy nekk cent mën nañu nekk cinquante ça dépend parce que dañuy liggéey ay projets yu mag mu nu projet bi toll rek noonu noonu noonu emploi yi di toll léegi nag bu ñu am bu ñu amul ay projets yu mag nag léegi emplois yi fixes yi ñoom ñoo ñoo ñoo ñoom la ñu nekkal ko ne di liggéey ak ñoom mais bu ay projet amee des fois sax dañuy soxla ay ingénieurs yoo xam ne xëy na peut-être Sénégal dañuy jóge ñu ñëw fii jàpp ci pour trois mois pour durant projet bi temps bi ñuy durer ñu liggéey ñoom en freelance après ñu dellu c'est comme ça noonu la sa relation ak autorité sénégalaise yi tamit dëgg na dafa mën a gis naa sa photo ak président Ablaye Wade waaw ak président bii nii ak ndax waaw mel na xam ne yaa ngi fii di Sénégal yor entreprise bu mag. Uh-huh. ñu ngi lay bàyyi xel ci loolu. pour appuyer la fii moom fii moom wax dëgg fa yàlla président Abdoulaye Wade moom. Hmm. sama papa sama xarit la ku baax la. comprendre nga voilà président Macky ñu ngi koy jaajëfal moom tamit xamante nañu depuis jamonoy PDS. Hmm. ba léegi muy ku nit ku baax aussi ku ma bàyyi xel. Hmm. saa yu ma gisee it Habib PDS la may tooñee genre affaire yooyu quoi voilà mais daal autorité dëkk bi moom. ay autorité yoo xam ne moom ñun daal namuñu dara fii vraiment dama naan sax des fois ñun li ñu sañ fii xam naa sañuñu ko Sénégal bu ñu sañoon li ñu am fii bu ñu sañoon Sénégal googu lañ koy am mais nag ñu ngi tàll ay loxo autorité Sénégal li ñu def fii duñu duñu bu ñu yaatalee ñu jox ñu ci marché yi comme ni koy joxee ñeneen ñi bu ko léegi ñu wala li ñu mën rek parce que def nañ suñuy produit fii ba pare voilà yu bari def nañ fi yoo xam ne bu ñu nekkoon fi di ko lim fii la ñuy fanaan voilà en tant que doomu réew mi mi ngi lay jariñoo bu baax jàpp naa ne ñoom tamit nañ loo mën a mën a ci sa expérience waaw buñ waaw bon ñun fi mu ne parce que ñun li ñuy jariñoo ci dëkk bi lu ñu am Sénégal lañ ko yóbbu voilà sunu yaboot lañ ko yóbbu Sénégal rawatina sunu yoon yi mu yoon Sëriñ Tuubaa yoo xam ne moom la ñu comprendre nga voilà moo tax ba ñoom bu ñu woowoon aussi bëgg ñu bëgg ñoo jariñoo it bon bon ñu tamit bon on sunu buntu tëjuwul pour loolu quoi comprendre nga sunu buntu tëjuwul pour ñu kii loolu quoi amul benn problème parce que li ñuy li ñuy li ñuy am fii mën naa ne quatre-vingt pour cent yi Sénégal lañ koy investir. voilà am nañ fa ay kër am nañ fa ay soxna xam nga am nañ fa ay maanaam ay investissement rawatina doon Touba googu nga xam ni ñu ñëpp ñoo ko bokk. voilà xam nga ñu ngi fii ñu fii lu ñu am ñu ngi ñu ngi koy jàppalee Touba di ko jàpp di di jàppale ci Touba ca kanam du ñu mën parce que foofu mooy yoon boo xam ne laa gis ni ñun taal boobu ñu ci jàppale. fi ñu fi jëmee fi ñu jëmee Touba mm-hmm. Touba dina fa yegg ndax Touba ca kanam li wax samay xarit toujours mais man dama ko bàyyi xel tellement que léeg-léeg sax ñu may tooñ ma comme sëñ Abibou sëñ Fallou sa xarit la man sama xarit la dafa daje mm-hmm. waaye dama xam ne Touba ca kanam buñ ci buñ ci ku ci ne bu ñu doon natt mm-hmm. naa bañ a am li ñu bëgg dinañ ko am te du te du metti man daal loolu laa gisee yëf yi gis <laughs> nañu dafa mel ni tamit euh, nitu social nga ndax xam naa ne sa tur tamit danañ koy dégg te ñaare en nit ku mën a dimbalee rek. Mhm. mooy mën a yaatu ci nit ñi noonu. Mhm. loolu sa bëgg-bëgg. waaw loolu da yaakaar a xam sëñ sëñ sëñ sëñ loolu moom sëñ Tuubaa ko jàngal. nit moom na sama xarit bu naan nit. Mhm. bu ko bu ko potu ndaa reggee yàlla jox ko paan da ko séddale loolu. parce que nit moom yàlla def yàlla yàlla jël lan jox la ko du ngóor su suñu borom moo defee noonu. bu jàppee ne ñi amul rek yow. dañoo feeñaa wala loolu suñu borom moo tëralee yow mbir yi parce que liggéey liggéey rek dafa mayul dara parce que tey boo xoolee fii ñi ma nekkal nii du ma leen jàng mais tey yàlla def na seen wërsëg sama loxo la ko jaarale mais loolu nag waruma ko dammoo loolu mbir suñu borom la yow yaa waroo xam ni yàlla dafa indi nii jaarale ko sa loxo mooy comme ki amul te nga tane ko da nga ko war di dimbali parce que ñun ay nit ñuy gis des fois am ci ñun cofeel dañu jox ay liggéey yoo xam ne sax jéggi na dayoo loolu cofeel la rek comprendre nga ak yàlla boole ak ñoom des fois sax du xam duñu ay jullit ñoo gis di la boole am na am na dama lay wax am na sama benn xarit bu doon eggale benn église bu ñu doon defar benn église mu ma dama lay invité ci église bi ma ne la mu ne ma dañuy defaraat église boo ñëwee dañu ba dañu fay dajale képp kuy sa xarit boo ñëwee nga joxe nga joxe loo xam ni dañuy defar église bi man nag yàlla xam na ni ba ma fay dem comme sama xarit la bëgg jàpp ci église bi moo ngi ko yóbboon ma jël téeméeri junni jox ko ne ko dañ ma ko joxal ci église bi ma ko joxee téeméeri junni bi ñuy wax mu prêtre bi ne dafa am leen ma dafa am benn ku fi nekk suñu benn mbokku jullit ñu ngi ci biir église bi mm. moo joxe lim bi pour ñu jàppale ko ci église bi mm. ci biir ci biir fidèles yi yi ne ci bi mm. am ku fa ne ne laaj kii lu muy def ñu ne ko kii de génie civil lay def moo tax def lu baax moom sëñ bi kenn xamul fu mu doon génie civil lay def kooku jox ma marché bu cinquante millions waaw waaw man dama demoon rek yëkkati sama téeméeri ñu jox ko en retour moom boo xam ne ça vaut une valeur de cinquante dugg di jàppale. loolu moom foog nga say nu yuxlifu voilà waaw loolu lay teg. sa diggante ak euh, lu baax ak bëgg Sëriñ Tuubaa la ñuy tudd sa relation ak la demee dëgg dëgg. waaw sama relation ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi moom. Mm-hmm. loolu moom bu ma ci doon wax fi lay fanaan. Tuubaa bu ma doon lim ñi ma jaxloo ci ay. doomu aadama filaay laay fanaan ndax ndax suñ mën ndoxaay mi tey rek di sëriñ Tuubaa tey bi ñu jaxasoo boobu lii ñëwagul ci ay loxoom daje nañu poroxaan soxna Baale moom taxaw bu baax sama diggante ak sëñ Muntaxa lu ci am moo ko ci def poroxaan ñu moo tax sëñ bi saa yu ko woo saa yu soxna Baale nee fii bu bu ñu déggante ñoom ñaar mu ne ko doomu Abib Biaye loolu nag du a loolu mbir sëñ Tuubaa la sama wax poroxaan ne ma saa yu ma déggee ko yaar <clears throat> sama xel loolu ma yaakaar ne lu mu fàttala bu yàggul dem naa fa di ko siyaar mu ne ma la ma waxoon fa la ci laa ne ba léegi saa yi ma déggee Kodwa rek sama xel lay dem ci yow xam nga loolu dafa am solo loolu nag lépp nag gannaaw yàlla yonent sëñ Saxo Balla liggéey na ci lu bari sëñ Mourla mi nga xam ne moo ne ci dëkk bi yoon wi tey ci suba sànq jot naa ko téléphone waaw ak euh, sama jaxasoon kilifa yu bari sëñ Muntax sëñ Mourla mu sëñ Abdoulaat soxna Bally Mountakha sëñ Cheikh Awa la ba ci Cheikh Bass Abdou Khader nii sama jaxasoo moom lépp ñu ma njaboot sa jubaa boobu jàppee la gis am cofeel ci man ba bu nekk ci dëkk bi tànk woowu ma yónni ma du am lu ko neex voilà loolu nag loolu nag suñ sëñ Tuubaa xam li tax mu defal ma ko te dama ko damoo dama ciy sant yàlla di ko jàpp ab soññ ba ci yéen ñi bi ngeen fi ñëwee li ma gën li a naqar rek mooy li ma leen yéex a gis waaye jàppoon naa ni seen lépp fii man la war voilà di sant nag njabootu Serigne tubaa gépp nag vraiment ndax aw ma seen fay ndax bu ma demoon fii lim képp ku ma jaxasoo tubaa rek duñ fi jógee waaw. <laughs> dëgg la comme sëñ Mourtala nga tudd noonu. sax moom bokk na ci moom lañ jokkool bi ñuy ñëw fi mhm. Côte d'Ivoire mu jëwriñ mhm. ñu koy sant bu baax. waaw loolu tax ñu lay laaj si diggante ak euh, autorité euh, murid yi nekk fii. comme loolu bee Sëñ Touba yi ak daayira yi. Mhm. def nañ visite ci dëkk bi gis ne fii. am na ay kër Sëñ yu bari yu ñu fi réalisé. en tant que yow sa diggante ak ñoom ci ci ci kër yooyu ñuy réaliser ak doxin bi mm-hmm. ak euh, ni nga leen gisee ñuy ñuy organiser ay semaines culturelles ak mm-hmm, mm-hmm, amee ak relation ak ñoom. waaw léegi nag kër Sëñ Tuubaa yooyu moom. dama ci dul mën a wax dama ci dul mën a sori. <laughs> parce que ñoom am na fu ma jaar ak moom ñoom fu bari loolu ñoom ñoo plus placé pour wax ko que man. comprendre nga man fi mu ne fii moom man lépp luy kër Sëñ Tuubaa même daayira Tijaan yi moom. macha allah dama fa dama dama dama dama bokk ci ñi ciy jàpp mais nag xam nga ñun mbir dañoo baaxawul di def dara ba pare di ko wax mais président daayira yeeg sénégalais yi ne fii yor ay ay organisé mag ñoom xam naa boo waxtaaneek ak ñoom dinañ la wax dinañ la wax sama taxawaay ci yooyu xam nga mais nag man yoonu Sëñ Tuubaa bi moom li ma ci li ma ciy kii rek xam naa ni <laughs> foofu laa mënee waaye nag daayira yeeg yooyu président yi ñoom moom boo leen ne Habib Diaye mbaa mu <laughs> liggéeyal sëñ Tuubaa ci li ngeen nekk xam naa ñoom xëy na boo mooy gën a placé pour mën ko pour mën ko expliquer dañoo mos dañoo waaw mën naa ne sama waajur dafay nekkoon ndax sama nijaay bi bokk ak sama yaay seen ñaari ndey bokk ndey ak baay moo fi nekkoon indi ma fi voilà ñoo fi nekkoon indi ma fi may liggéey ak moom ba mu xëy Berma ci ban année la yooyu loolu sama nijaay moom yàgg na fi sama nijaay moom bu mu fi nekkee ak man ay année quatre-vingt-huit quatre-vingt-neuf laa fi ñëw nekk ak moom voilà nekk moom ba après ni mu rentré man ma toog fi di liggéey ba ba yàlla indi li yëpp tey yàlla indi lépp tey waaw ñu koy sant yàlla bu baax nag di ko sant yàlla yent sëriñ Touba xam nga vraiment li ñu sëñ ji waxoon rek nañu toogal nañu toogal fii daa am loo fi liggéey sëñ Touba waaw moo tax man gëm naa ni moo tax aw ma frontière ci yoonu murit man kër sëñ li ko dalee kër sëñ Modou Moussa ba kër sëñ Mourtada aw ma frontière fépp fépp man am am naa fa wàccuwaay ndax man li ma sëñ Cheikh Ball di wax rek Habib na yaatu yaatal ndax yoonu sëñ Tuubaa moom génn kër la rek c'est comme ça yàlla taw yàlla taw fee xale na ma aussi di mujj fii maa ko wàccee ci avion moo tax loolu indi sama jaxasoo njabootu sëñ Mourtala gi waaw yàlla taw fee xale na ma ma wàccee ko ci avion bi mu yónni ma wowal ku ñu naan Modou Fall voilà. <laughs> yan kàddu ngay mën a tëjee yoo xam a ko. yoo xam antenne bi. waaw antenne bi kàddu yi may tëjee rek mooy. di leen sant di leen gërëm di xamal ni yéen li ngeen nekk nii ñun ñëpp la waroon bu ngeen ci nekkee nag ñun ngeen ci nekkal ñu leen di encouragé di encouragé taalibe yi aussi ñu ja ñu luñ ci mën a jàpp ñu jàpp ci ndax jumaa ji sunu jumaa la gën a jàpp ci Touba ca kanam pour que ñu gën a taxaw yoon wi parce que yoon wi toll na foo xam ne waruñoo ci xaar kenn waratuñ si xaar état ndax ñoo ci ñoo ko war a waraloo sunu boobu ndax sunu yëf la waaw di sant njabootu Sëñ Tuubaa gépp bu ma sañoon nag damay toog fi di lim ku ci ne. mais sama xelañ ci ñëpp mais nag bu ma limee sëñ sëñ Muntaxa lim sëñ Cheikh Awa Balla lim sëñ Jili mi nga xam ne ci moom laa sukkoon jébbalu comprendre nga liñ soxna Bally ah ak njabootu Serigne Touba gépp vraiment day mel ni lim naa ñëpp voilà buñ ci boolee sëñ Laat Bousso yi xam nga foo limee Mbàkke Mbàkke war nga lim Bousso yi comprendre ak sama xarit sëñ Bas Bousso waaw loolu moom bu ma leen limee lim naa lim naa Bousso bi yëpp waaw xam nga am lañ ne Mbacke ak Bousso bi waaw bu ma limee bu tuddee sëñ Mountakha tudd Soxna Bali tudd sëñ Cheikh Awa Balla sëñ sëñ Mourla mu sëñ Ablaat yaakaar naa tudd naa Touba yëpp vraiment vraiment loolu daal maa ngi sant njabootu Serigne Touba yëpp ndax def nañ ma noo xam ne man aw ma seen pay man Touba damay jàpp ne rek ñëpp a ma bëgg kilifa yëpp a ma bëgg voilà te vraiment te ci kenn dara ndeysaan démb rek laay déggante ak sëñ Baara la sa <laughs> baax la waaw waaw. jërëjëf kon mën nga tàggatoo. waaw tàggatoo bi de xanaa mooy di sant rek. di di sàkku ñaan ci yéen. di sàkku ñaan sëñ Mountakha yàlla defal ñu jàmm ñëpp. bépp Sénégalais bu ne fii Côte d'Ivoire nag di fi liggéey yàlla taxaw la may la li nga bëgg may la wér may la loolu di yóbbu sa njaboot. voilà xam nga parce que Sénégalais yi fii ay jàmbaar lañu xëy na da ngeen yem ci man rek. mais bari na Sénégal yi fi ne yoo xam ne si seen entreprise ñu ngi seen doxu di liggéey di jaamu yàlla te Sénégal yi fii moom ñëpp benn bopp lañ ñëpp bëggante fii amul parti politique amul amul tarixa amul dara lu xew ñun ñëpp fay daje voilà c'est comme ça bépp Sénégal bu ne Abidjan rek ñu ngi lay ñaanal yàlla taxaw la taxaw sa njaboot voilà njaboot Serigne Touba yeeg njaboot Alaaji Maalik yeeg képp kuy Sénégal yi nef rek yàlla na yàlla taxaw loolu lay tëjee.

yu bëri yoo xam ne moom moo defoon ak solution bi kàddu yu am solo yi nga xam ne wax na ko ci diggante doon njabootu sëriñ bi ak jaar liggéey ak liggéeyam ak si dëkk bi loolu li muy li koy wax li muy li muy tegtale mën na ci jël exemple ci Sëñ Tuubaa li mu dénkaane woon ci taalibe bi na ngeen di liggéey ba mel ne du ngeen fi jógee na ngeen di jaamu yàlla ba mel ne suba ngeen fi jógee na ngeen nangoo liggéey te bu ngeen amee da ngeen ko nangoo delloo ci yoonu yàlla moom ci loolu la nekk hmm. ndax ku la mënal sañal la te ku la sañal gàllankoor la ci sa diine wala ci mm-hmm. sa ngor mm-hmm. ñaar yooyu yëpp liggéeykat da koy daw moo tax muy moom boppam kon ñu ngi koy sant di sant suñu Cheikh Awa Balla mi nga xam ne moo ñu fi yebal di nuyu suñu Basiir Bousso moom it sama doom sama rak sama xarit di xarit suñu suñu abit ñu koy nuyu bu di di la jaajëfal ji ci teg bi ci li ñu dalal fii man ak suñu Abdou Khadir Bousso rek mu xam ne ñoom ñëwoon fii ci Côte d'Ivoire ngeen def si ab liggéey ñaanal fii tamit ngeen naatal kàddu yu am solo yi ñu leen di sant di leen gërëm salaamaaleykum wa